weeru koor kër nugum nugum mi weeru koor siru man musuma gis lu mel nii kër nugum nugum mi man musuma gis ku ragale nii lu ne lay def moom lu ne lay daj kwa kitange kendo amjama Dinugum nugumi, dinugum nugumi, dinugum nugumi Karnugum nugumi, karnugum nugum, karnugum nugumi Siru. yéen ko son di laaj ak sino mos xam moy sen garab gi gëna woor moy sen solution totale ci bir kër gi len bu fekkente ni new katan nga dem ba mënantoo dara ci kaw lal bi say man yu jeex tak manam mbokk mi ba nga di daw 100 puissance bu woor te wér ci wat ma sha allah nga dom ba won ah mbokk yi course bo sumb jël fa première dama ni nga don deug deug borom kër gi kay xol mos xam mos xam Serigne fallu Mbacke mi mo len ko indil di garab gi nga xamanteni ak wuy turam boo mo sey xam kenn du ko xili xal mos xam dal daal mooy seen àndandoo bu gën a wóor si biir kër gi waaye nag am na lu mos xam bi nga xamante ni mbokki mi moo baax si jàngoroy jamono ji hémorroïde bu nëbb wala bu feeñ dama ni fu nekk nga dem fa amoo fa saafara nga faj faj mu bañ ak si ñëwal mos xam boo mosee xam dëgg-dëgg moo baax si ulcère ballonnement ba si nag seer yi fatiguement général lépp lay ah am sutura xam li muy def te nag fortaatu ko waaw ngeen xool suñu jaaro bi jaaro bi nga xamante mooy jaaro wërsëg moo leen di ubbi di xëcc dama ni boo ko Mbàkke dëkk dëkk bi laal dara ci sëriñ bi doo wootee caaxaan produit yi nag li nga xamante ne waa ni yaay tey de moom da nga def ci fete gi moom ah yow laay jàppale donc nga bi ngay sant da ngaa lim météo gis nga maa xam ne ci lii ngay ma jàppale la waaye li nga xotti doy ah waaw gis nga ko de. bëgg nga bëgg nga kontaan ak yow c'était c'était tubarkaal. ah macha allah yow boo kontaanee rek kontaan naa. bëgg naa ci yow bëgg naa ci yow. soo kontaanee daal. bëgg naa ci yow li ngay kontaan naa. waaye waaye Tamba gi seen seen degré bi bari na. ah tàngaay bi kay moom ni ngay war nañ cee waxaat. tàngaay koor gi ngay seen pexe moom. ren kay moom doy na waar. ren ah, kay ma gis lii mi ngi doon jàmm. maaleykum salaam maaleykum salaam. Nijaay. Naar. <laughs> nelaw ba jant bi la ci loo nekk yaa ngi jàmm naka noonu naka suba si bàkkee tool bi jaay waaw man moom temps yi réseau yi dafa xat maanaam réseau yi actuellement dafa saturé ndax adduna bépp ay information rawatina biir Sénégal non surtout politique bi sax fan yi moom daa non man sax daanaka politique bi fi mu ne may waxee yow ni ñuruma saa bu tuddee ci weer bi lenn rek may ñor saa bu ma jàkkaarloo eh, sama xel ci dem weeru koor wi ah pour di ma jox information koor déedéet bu la question jox man adduna bépp laa jox ñu faa ñu ngi waxtaan ci biir très bien à l'instant bi ngi message passe SM xibaar merci beaucoup lii moom la ñëpp bind tey. mooy SM xibaar dëggal na ko. lu baax nee na. incha allah rabbi weeru koor gi atum 2023 bii ñu nekk weer bi dana feeñ tey jii ma wax ak yéen tey jii ma wax ak yow wala suba. SM xibaar nag moom. dana woor tey wala suba daal baax nañ waaye ñoom information ramadan dañ cee sabab lool. ñoom danoo mel ni dëkk màkk rek. dañuy mais xanaa jullit nga loolu ngay wër. waaw loolu maa ngi koy wër sax waaye du lool lool maa ngi koy wër sax koor gi waaye koor moom baax na waaye neexul beneen bi topp mooy information koor yi nga ma jox ragale woo yàlla sama fitna moo la neex xam naa loolu waaye kooru ren bi hmm. sa xol sedd na sa xel dal ma ciy jël samay samay matuwaay yow ak sama soxna set yokkat ñépp la intéressé kër gi ren sama xol dana set <laughs> wala ma yokku ala yokku kaay wuyu kaay yokki fere kaay ay fen dara bëri la jënd jëmm la. yaa ngi soxaale de. nee naa toog rek daa feebar. yaa ngi soxla toogal. wér wér moom. waaw yokku. waaw. ma wér moom am lu xew. ñoom yaa ngi soxaale. yaa ngi soxaale. boo kii yee fajul dégg nga. yow damaa tiit sax waxtaan yi nag maa ko maa ko ne xam na ni sama soxna si may jënc. saraka. ba ma ko dalee bi léegi dana ñëw. naam nag moo la xaw tane ndax moom du mer te da ngaa Abdoulaye Naar mi sax jarbaata maa ngi waay juróom bokk lépp mm-hmm. Mm-hmm. koor gi nag ren dama leen di dama leen wax nouvelle boo xam ni sànq la fi wàcc bi suba mu bu neex mm-hmm. ku ne xam ne ne koor yi ñu naan romb xeex danaan am xuloo guerre ay ndogoog yooyu ren nag eh, kër gi dootu maanaam lu ci xaj la ci dem lu am na bokk lu ma am nan bokk lekk dëgg ah, lay naan alhamdulilah ah, non non non yu bañ yu bañ loolu moom ah, mu ko validé moom lu ci xaj na dem xam nga nouvelle bu neex la waaye nouvelle bi moom day nouvelle boo xam ne mooy terme bi. mooy mooy terme bi terme bi mooy li ma dox mooy moom day mën a ñëw ñu ànd ci jàmm. ñu ñu ànd ca leneen rek. waaw ah, déet loolu la woote déggoo li wax na waaw man su ma woowee ci jàmm ma fekk si ko ci jàmm. woote leneen te du ma ko xam ne leneen ak yow mii yaa bëggul jàmm. Ah, lii laa bëgg lii laay def. yokk nag man man nag wax dëgg yàlla man dama yaakaar ne ak yokki fere nga quoi man wute ma gàtt sa gàtt sa. laa xëy yokk kër gi maa ko yële farak kii sama soxna la kii sama jarbaat maa la ah, inversé ma ne lu ko bokk loolu lu am nan ko bokk boo ci dugalee leneen ma ne nga fekk fi leneen. ki jàpp la woote. ah déet dama wax sa bopp tamit wàññiwul dara ah. yow da ngaa naqari direct te amoo direct. loolu mooy kenn ku nekk yu mu bañ. tey yaramam neexul kii li mu wax yaramam neex na kii li mu wax ak koo xam. Mm-hmm. xam nga nag wax dëgg yàlla bàyyi ma wax dëgg ji rek nga xam ko. sama nijaay nag beret la ku la jox cër ku la respecté waaye li nga wax nii daa maa loo dañ bett ci ma daal minimum ko ci yow. wax dëgg yàlla donc mu toog ci digg njabootam ñëpp wër ko mu wax lii nga naan daf maa bett. ah non maa ngi euh, ah, nga wax dëgg wér téng hmm. fi mu toll nii danoo temb ci jamono joo xam ne dégg nga nit ki ni mu ne lëngee nga na ah, ci yoon mu ànd ak yow ci yoon boo jàddee yoon bi ñu jàdd yoon bi comme yow bul gaañ sa bopp bul gaañ sa bopp bëggal jaam yow non jaam bul gaañ sa bopp jàmm laa woon. Ah, wax jéem bi demee du waxantu léegi daal lii nga wax xam kañ laa ko jàpp. ñu première dog ñu mm-hmm. dogandoo ma xool mm-hmm. yi ci des nag dinaa yor seen bët xool. léegi sax li ci dàqate ba dàqate ci moom. waaw fu ngeen gisate jaay yàlla. jaay yàlla mooy. mooy koo xam ne maanaam daan na ci mbedd mi ba dog njog. waaw mu dem këram dog fekk ko ci yàlla wala amul lu ndogoon. ceci validé avec toi. waaw ah, mu ñëw ma jox ko mu nangu. ah am na bopp naa pour pour yéen ñëpp. pare naa ko ok waa école ba non non ñooñu nag bu ma leen soxlaa naa naa la fa nga waxaat leen dégg nga. waa école waaw waaye ñiy dox ci mbedd bi rek waaye gone yi la fi. danañ <laughs> fi waaw bu ma leen soxlaa naa na nga waaw lan ne waaw alhamdulilah waaw man ne li am solo. waaw nan ne waawagum. kon waawagum waaye nag foo ne bu jëriñ waaw ah kenn xamu ah, yu bañ li mu wax na ko de. waaw moom moo ko wax. waaw moom moom moom kilifa dëgg la ko topp ba. kontaan lu mën a xew. nañ daan def ba léegi nekk arme yi bu ndox bàyyi yoon. waaw arme man ci yow laa bokk. oh politique am na lu xew de. man ci yow laa bokk information yi xam nañ ko fi yow. ci yow da nga dem jaay dana ñetti bëgg ante bu ñu xare nga topp information yi bokk ci ay groupe yi xale yi réew meeg rox baa ngay neex ak mën bu ñu yóbbu bu ñu yóbbu jaay dem tibal lañ dara ma jaaxal. kay loolu ma jaaxal ndax sama njaboot gi mënu ma dem. ah dina da nga fexe li nga kaya la ba kaya la ya so ko lepp so xam ni day kalta minam nam la wax ni lolu nak xam na deug nak lolu ngay xexal ba ren dara ren kay yex sama la sa xol lu ne lay def mom lu ne lay daj lu ne lay wax bu ko gi tangé kenn du am jamm day nugum nugum mi di nugum